salaamaaleykum mbokk yeeg xaritu internet yi seen seen Limametti TV moo ñëwoon tey ji defal leen benn reportage def micro di laaj si bis yi ban apport la am si sunu jeunesse bi lan moo tax bépp xale boo xamante ni wala bépp jeune boo nga xamante ni am na connexion rek bu duggee YouTube mi ngi xool ay faits divers mi ngi xool Pawlish mi ngi xool Ouzin Keita mi ngi xool problèmes ba ñoom ñooñ sax nu jaaxlewu di poser question naan lan moo tax nit ñi gën a intéressé wu seen vie te am lu gën a am importance ay recherche ay boroom xam-xam yu fi ne te gars yi demul def gëstu su ñoom tey jii nag dinañ dem si population bi laaj leen lan na ñu xam si thème boobu. bon boo seetee ni jeunesse bi dañuy intéressé wu soo ci soo dañuy bëgg en fait da nga xol ni temps yi moy da ngay jang ba yenn niveau yi tamit ben instant da ngay mujjé décourager euh do bo nekké ci réseaux sociaux tamit dotal len lu ay tiktok genre yoy non xamna lolu mo waral lolu bon lu tax nit ñi di intéressé ñom day pro peut-être bëgg am ay eh, information bëgg nañu am information ci melni ci ñu problème parce que amna ay problème ñu jangante mom di problème gaay peut-être mom lay suivre bëgg xam ci mom ndax maa ngi doon dégg la fois passée ñu ne dañ ko jàpp par la suite maa mu yaa mujj décédé peut être sama classe bi yooyu la seet si moom quoi bu ko am ay information yi tamit. bon bëgg bës bi tamit du dara lu dul benn instant da ngay jàng ba benn niveau bi métier bi dafa am après am bës bi boo amee bës bi par la suite YouTube bi ma nga see gagné euh, argent affaire yooyu noonu xaalis gars yi daal fu mu a xaalis moo leen dugal si yooyu noonu quoi. Euh, gars yi nag dañ ko teg yaakaar ne instant moom moo moo moo gën a fës quoi bës bi ñoom dañ ko téye comme genre ay alal lu leen neex daal la def pour wut bës boobu boobu mun nga sax xoolal par exemple si jigéen yi jigéen yi dañuy jaay seen ngor ndax bës boo xoolee boo duggee TikTok jigéen yi dañuy wane seen lu ne mun nañu sax teg xaay si lëmbal si affaire pour am bës rek pour gars yi xam leen waaw loolu da ngay bu ñu màggee ñom buñu ñu mën na len mën na len li quoi mën na len lor ci buzz bi imaginer ku nekk ci TikTok di def yenn yi ci jigéen ñi quoi lo abat dalay indi indil yenn conséquences yo xamné moy lool wa pour man nak jeune yi instant yi dañu intéressé wu ci buzz parce que dañu bëgg populaire parce que ici au Sénégal on nous constate que ni que ñu bari à partir de buzz bi lañuy jaaré nek ay artistes ay journalistes ay comédiens et autres. école loolu noonu daf leen permettre ñu am beaucoup kii kii yu bëri possibilité yu bëri loolu la en fait pour man y pas grande conséquence du point de vue de la réputation parce que tamit benn conséquence bu xawoon néfaste rek laa gis muy les préjugés envers eux parce que tamit boo siiwee moom ñëpp ñoo lay tudd ñëpp ñooy wax si yow que ça soit des choses positives ou négatives moom da nga koy rencontrer ci kii waaw parce que man moom personnellement je vois que ce n'est rien d'autre une question de divertissement parce que man suma dem c'est juste pour me divertir wala problèmes mais aussi il faut que ñu que souvent nous lancer messages ils sont importants parce que ici que ni ñu ah, importance alors que ñu importance parce que parfois ci seen ay wax dang ci jangé lu bari est ce que ñom tamit dañ lay jangalalé aduna ce qui veut dire que souvent boo jëlee kaawu Pawlish bu la waxé que ni il était une fois à l'extérieur jarna fi jarna jaar ba légui à partir du buzz ci la amé lim am kon on peut dire que buzz nekul lu bon souvent que nit ñi nak ñoko ko jere ngeen jëf mbokk xaritu internet yi sen sen lima metti TV mo leen lon reportage defal won leen reportage si showbiz sénégalais bi lool na leen lon tay ba benen inshallah